génn jàmm donc euh, effectivement bon c' est un c' est très difficile parce que euh, bu ñu nee dañuy def jàkkaarloo ñun ñëpp euh, pendant toute la semaine xam naa peut-être da nga ne ñu wax ci li fi xew te mu nekk lu diis bopp la kenn mënu ko xaar ñaar am na foo xam ne bu fa tolloo je pense que nous tous on se retrouve si benn situation bu difficile parce que damay tàmm di wax que ni quand même on est un pays mais c' presque un petit village parce que même alkaati pàcc bi boo ko rombee benn yoon di ko xam. Mhm. donc ñun ñëpp am nañu benn proximité. Mhm. ak nga xam ne policier la wala gendarme mu nekk si si si si dëkk bi. donc euh, li nga xam ne moom la ñu wane fii léegi euh, je pense que bu fekkee ni euh, liggéey bu ñu war a def la dafa waroon nekk liggéey boo xam ne dañ ko waroon def avant ñu egg fii. je m'explique parce que boo nekkee ci université yoo xam ne dafa am ay milliers d'étudiants mm. nga xam ne ñoom à chaque fois ñu am frustration. nii lañ koy manifester mooy jël xeer sànni je pense que y a un travail ah en amont bu ñu war a def psychologiquement pour qu'on permette à ces gens la de ne plus utiliser ay xeer wala dara parce que euh, quand même xeer mën na constituer une une arme mhm. contre qui que ce soit ku ñu door bopp ci xeer xeer ci boppam bu portant mën nga ci jëlee partout donc euh, c'est pas que euh, fital fital rek moom mooy nekk arme quoi mais je pense que li nga xam ne moom nga fi wane nii e bien mais euh, ñu ngi naan médecin après la mort je m' explique si li mu def baax na mais dama ne ah dañu war a préparer même ñi nga xam ne dañu nekk si étude université di jàng psychologiquement que ni y' a une autre façon. de de de manifester aussi. Hmm. sa sa indignation sa sa sa colère. que jël li nga xam ne moom mooy peut-être que euh, confrontation en tout cas physique wala jël dara. Hmm. pour pour xeex ak ki nga xam ne fital la rek te euh, ñëpp bokkuñu mag peut-être que am na koo xam ne am na retour boo xam ne.